jërë ngeen jëf ponkal yi ci géopolitique bi ak seen jël yu takkarnaase yi ca conseil constitutionnel l'observateur xëy na ci defub taxaw seetlu ubbil yéene kay bi commission bi càmbar dossier parrainage yu candidat yi contrôlé na démb lu mat ñaar fukki dossier ñaar ca ñoom ñoo ca jàll am na yeneen juróom-benn yu war a dem defaru jiwaat ngir jaaraat ci kanamu commission ba am na lu toll ci fukki candidat ak ñaar yoo xam ne l'observateur ne nañu commission contrôle parrainage bi dafa l'observateur li jur li xew tey mooy renouvellement gu xóot gi am ci classe politique bi moo tax ba ñuy jàppe ay kàngam ak i kàng ci politique bi seeni mbir doxul nañu ko doon séento ñooñee ñu tuddee ay ténor ci langue politique gi Walf Quotidien mi ngi ñu wax ne lii ram bu yeggee ca ñeg ba du baax ci ñoom li bon dëgg ci candidat yi ak seeni parrainage enquête dina kay nee nañu mooy doublon yi ndax bari nay ndaanaan yu daanoogum doublon yi moo leen daaneel journaliste ko xëy daanu ak ñun ci la xew démb ba muy Alaaji Mali Gakou di Aly Ngouille Ndiaye Mouhamed Boun Abdallah Dionne Souleymane Ndéné Ndiaye Mamadou Lamine Diallo ak Serigne Gueye Diop Diop Decroix El Hadji Ibrahima Sall Adama Faye Babacar Diop Thione Niang ak ñeneen journal bi nee nañu ñoom jotuñoo jàll ñu jàll ci journal bés bi le jour mi xëy jàll ci candidat yi jàll ci parrainage bi muy Habib Sy journal bi mi ngi ñuy ne parrainage su député la yóbbu fukki député ak ñett yu Ousmane Sonko ñoo ko parrainé monsieur parrainage bu parrainage bu Benno Bokk Yaakaar xëy na di defal wàllu témoigné le point ci parrainage bu bi gën a mag ci continent gi ñu am am na ci seen waa kër ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñu fipp journal Tribune moo ko bind ñi ñuy wooye tey les de Matam tey cadre yu Benno Bokk Yaakaar nekk ci ñoo doon conférence de presse démb tribune ñu fa la waxee ne bëggatuñu kii di Farba di wéy di doon coordonnateur départemental bu Benno Bokk Yaakaar yamuñu ci ndax sàkk nañu ci président Macky mu woo Farba ci ruq wax ak moom yamale ko tegaat ko place fexeet ba discipline dellu siwaat ci biir coalition bi ca Matam li leen ñu ñoom les forces vives de Matam ba tax ñu génn tey la cour suprême di lijjanti pourvoi en cassation bi amoon ci coowal Prodac li ak tuumay détournement bu 29 milliards bi Ousmane Sonko doon tuumal Mame Mbaye Niang yoon atte woon na ko daanoon Ousmane Sonko juróom benn weeri kaso yu mu dul tëdd six mois avec sursis alamaanoon ko ñaari téeméeri millions yu mu waroon a jox Mame Mbaye Niang mbir ma mujjee ci pourvoi en cassation tey ci alxames ji la Sénégal ne nañu audience suprême la ci Ousmane Sonko fa ñu jëm di ca cour mi ngi ñuy xibaar dogal bi mu jël démb jëm ko joxoon doon ca ŋàññi ak jibaane marché fourniture équipement médical bu toll l'observateur nee nañu cour suprême dafa rejeté recours ba député ñu fa yóbboon ba ne leen dox leen foofu Carrefour médical moo àndoon ak i fournisseur médical yu ci mel ne Dimente technologie service et Sodemed yóbbu woon ab recours ca cour suprême doon ci tuumal ministère de la santé ne dafa jox ACD Afrique conception distribution marché bu toll ci milliards ngir mu jënd 100 ambulances médicalisées tabax ab hôpital ca Bakel tabax marché gré-gré la libération yu ci xëtamu njëkk cour suprême validé na marché bi ndax nee na gisu ca daray gré à gré ñu roññu roññu ñun delluwaat ci l'observateur wàllu yoon mu di justice ba tey waaye ci weneen anam ñi ñuy wooye ay interprète de justice mu di ñi nga xam ne bu ñu waree àtte nit ki déggu li justice di làkk ba justice dégguñu li nit ki di làkk waajooje mooy taxaw di traduire ñoom seenub liggéey nañu koy dundeek lañ ciy dund l'observateur xëy na di ko waxtaane am na benn interprète de justice bu wax ci l'observateur ne benn bés benn waaye jaasi la ko di ko da ko waxal lu mu tax justice condamné ko wàllu yoon ak diggante Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang tey jii la Cour suprême di àddu ci recours bi avocat yi Sonko defoon ngir daan bi tegu ci kawam juróom-benn weeri kaso yu mu dul tëdd ak ñaari téeméeri million ne alamaan diggam ak Mame Mbaye Niang loolee ne dogal euh, ñu daal di ko bitar ñi waaye bu fekkee ni nag Cour suprême dëggal na mbir yi maanaam ba ko euh, na woon fa woon Ousmane Sonko euh, ci wàllu politique ak wàllu jongante du mun a bokk ci élection yi nu dëgmal di palak njiitu réew 25 février 2024 ci fànn woowee di yooyu élection ak loolu parrainage gi euh, conseil constitutionnel mu ngi koy wéyal am na cay candidat nag euh, yu nu wàññi euh, donte ñu ngay wéyee ki jàmbat ndax ñoom jàppuñ ne nanu wàññee noonee la ak it nanu yëre seen clé USB yéen fa yóbboogee nan lu ci mën di am Euh, ñu ngi koy wéyal ñi jàll xam nañu leen ñi ne wàññi it naka noonu ñi jàll bokk na ci Karim Wade candidat bu PDS ay ñoñom waa PDS a nga woon démb Fatick amoon fa njàppale mouvement bi di nous citoyens li ñu bokk euh, ñoom PDS ne du ñu yàkkamte dara ci seen i mbir <coughs> jéego euh, ak jéego la ñuy teg ba keroog ñu egg fi nu bëgg maanaam toog ca pale ba àndoon nañ ceeg soxna Aminata Goudiaby ci wàllu wér-gu-yaram liir yi nu yóbbu woon ca Albert Royer ca ñu jële woon leen ca pouponnière Ndella Madior Diouf bi di kër yërmande fukk yee ñu entré woon ci Albert waaye juróom-ñett yee wér nañu pëng macha allah ñaar rek a fa des àndoon nañ ci leeral ak soxna si jiite hôpital boobu <coughs> di docteur Issa Tall seen digg ca Paris waaye lu ci mën di am euh, ñu ba ko mu waxal boppam ak i ñoñam euh, nu nuy doxalee ginnaaw si ginnaaw moom même ndaje bu ngoonee ak premier ministre Amadou Ba ndax dañu koy jàppale wala déet 8h05. wi élection yi nag xam ngeen ni dafa am euh, wàllug euh, anam yoo xamante ni ci la ci nit di mën a bokkee bokk na ca matal euh, la ñu sàkku ne lim ci wàllu parrainage am na ñu matal am na ñu nu wàññi am ñu nu sàkku ci ñoom ñu dem def ak mottali am ca ñu ne boobaak léegi nag ciy jàmbat jàpp ne daal ñoom gisuñ ne na ko conseil constitutionnel di doxalee na war a lu ci mën di am ñu ngi ci contrôle gi tey ci ngoon wala démb ci ngoon Aly Ngouille Ndiaye Malick Gakou Serigne Gueye Diop ku ci mel ni Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom it ni ñu ko waxee sàkku nañ ci ñoom ak mottali ñeel seen lima parrain Abdou Mamadou Diop Decroix moom ak Thion Niang na ko noonu Assane Ka ak El Hadj Ibrahima Sall dañ leen daal di kale euh, Mary Teuw Niane it euh, def na recours euh, ci kanamu conseil constitutionnel ñeneen ñuy defi recours mooy waa Alioune Sarr ñu ànd ak moom ay avocat moom président bu CAP 2024 tey jii dinañu dem ci conseil constitutionnel ngir daal di déposer seen dossier bi régularisé ni ko yoon sàkkoo ci wàllu kon article L 126 bu code électoral bi bu nu ci jógee mandataire bi ki askanoo ak taskatu xibaar yi Karim Wade moom démb xibaar jib na jëm ci ne lu jëm ci wàllu parrainage moom jàll na ko moom candidat bu PDS mu des euh, yeneen ci ay kayit yu ñuy laaj ci wàllu kon loole euh, ne candidature ndax ak parti la rek euh, valable pour ñoom ñëpp ñu taxaw ngir doon ni mbër du rek parrainage waaye faaw ak matal ñeel seeni dossier waa PDS ñu ngi ci waajal gi yàkkamtuwuñ ca dara ñu ne ndax Karim Wade ak euh, ñoom waa PDS étape par étape lañ bëgg a jàll mbir ya euh, ca Fatick ñenn ci ñoom a nga fa woon am fag njàppale bu tukkee ci mouvement euh, nu citoyens li nu boole leeral li soxna Aminata Goudiaby parti démocratique sénégalais ñoom dafa mel ni ñi ngi préparé bu baax a baax dellu si seen candidat bii di Karim Wade waaye nag ñoom neenu ñu wuñ ci dara mbir yi ndànk-ndànk lañ koy defee teg ko fu wóor loolu mooy méthode bi nga xam ni moom la seen leader bëgg nga xam ni mi ngi ci exil juróom-ñaari at ba léegi a Faye kenn la ci bureau national bu parti démocratique sénégalais. ñëwam li ci desaat euh, bëreetul. nañu mu tuuti ca xam ne moom mi ngi waaj waaye buggul ñëw ci indaalewul li mu war a indi yëpp bu ko defee sénégalais yëpp teeru ko mu ànd nag ak yeneen cadre yoo xam ni ay libéraux la ñu Mayoro fay dafa ñëwoon ci Fatick rek ngir fekkee ab conférence de presse boo xam ni mouvement bi ñuy wax nous citoyens lu ñu boole wala ñoom ñoo ko doon organiser mouvement boobu nag nga xam ne Mandiangane Fall moom moo ko jiitee ñoom nee ñu élection présidentielle bi di ñëw Karim Wade la ñuy jàppale nekkul ne Karim Wade ñëw nekk ministre yore ministre euh, yore lu jëm ci tali yi yore lu jëm ci énergie liggéey liggéey boo xam ne te jàpp na ne li muy liggéey dafa war a faj soxla askan loolu dama ko gis ci moom gis ko ci démarche am gis ko ci ni muy dox. moom Karim Wade nag Mayoro Faye dafa jàpp ne moom mooy profil bi gën ngir jiite Sénégal ndaxte bu dee expérience am na ko ci ni nga xam ni moom la ñuy yoree réew. candidat yi ngeen fii dégg yëpp moo ci ëpp relation. relation yu am njariñ nag laay wax. te Sénégal dafa soxla loolu. ñi ngi jëm ci exploiter gaz ak pétrole ci sunu réew. mais buñ ko tegul ci loxo yi koo xam ne. bëgg liggéey bëgg waaw kon liñ ciy seenu duñ ko am. ki jiite nag mouvement citoyen li ñu boole moom nag nee na fi mu ne nii soobu na ci xeex bi ngir Karim Wade am ndam weeru février bi ñu jëm moom ma ñangaan faal nag nee na li njëkk doon xeexam mooy waat militant yi nga xam ni parti démocratique sénégalais moom la am ci biir région bu Fatick Aminata Goudia bi Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata ñu jégalu ñëwaat ci euh, ginnaaw aslëf ci wàllug euh, diggante Mame Mbaye Niang ak euh, Ousmane Sonko ak coowal 29 milliards yu Prodac ak lanu ciy xaar tey ji nepp dogalab àtte ginnaaw recours bu avocat avocat yu Ousmane Sonko ñu koy xaar ci ëtt bu kawe bi di cour suprême euh, dañuy dellu as euh, lépp ginnaaw fàttali leen li waraloon boobee bi réeroo audience bu alxamis bi nag ca cour suprême mënees naa nekk bu mujj diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye waa cour suprême war a examiner nag pourvoi en bu avocat yu maire bu Ziguinchor daal di déposé ci mbirum 29 milliards yu Prodac bu fekkente ne ni nag këru attekaay bi dafa daal di dëggal dogal bi nga xamante moom la cour d'appel daal di tegoon ci kaw Ousmane. Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko nag day daal di inéligible bu ko defee pexe nag dootul am ngir mu mën a bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi cour d'appel bu Ndakaaru daal di condamné woon nag juróom benn weeru kaso yoo xamante ni du ko tëdd ngir délit diffamation ak injure boole kook tamit confirmé 200 millions de francs CFA yi nga xamante ni ci wàllu ko dommage et la te àttekat bi daal di koy jëloon nag ci première instance ci première instance boobee sax ñaari weeri kaso ak 200 millions xamante ni moo nekkoon verdict bu àtte bi njëkk a dox ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ci première instance bi waaye Mame Mbaye Niang ak waa parquet bi mel ni nag daan yu ni mel dañ ko daal dee xeeb ndax ñu ngi doon séntu ay daan yu ko gën a diis moo tax nag gannaaw gi ñu daal dee dem ñaani d'appel ca noonee sax lañ daal dee am lañ doon sàkku ci ay daan ñu teg ko nag ci kaw Ousmane Sonko moom Ousmane Sonko gannaaw gi daal di dugal ab pourvoi en cassation waa Cour suprême war koo càmbar nag ci alxamisu tey jii te Ousmane Sonko di xaar ngir àttekat yu Cour suprême daal dee neenal nag daan yi nga xamante ni moom la cour d'appel bu ndakaaru daal tegoon ci kawam. ndongo kaa ñu koy gërëm delluwaat euh, ginnaaw lëf ginnaaw bi euh, ñu euh, jégguloo ci njumte yenn yi ñeel tegale gi war ci njoxinum xibaar mi dañuy delluwaat ak yéen ci wàllu conseil constitutionnel ak jaar ga fa ñi taxaw ngir dooni mbër ëllëg ngir palak njiitu réew di jaar ngir ñu xoolal leen waññal leen seeni parrain bokk na ci ñoom démb fukki ci ay mandataire di ndawi yooyee candidat euh, bu Aly Ngouille Ndiaye ca la Alaaji Malick Gakou Serigne Gueye Diop Souleymane Ndéné Ndiaye ñoom ñëpp sàkku nañ ci ñoom ay euh, jubbanti ci wàññi gi euh, Mamadou Diop Decroix ma ko waxee sànq ak Assane Ka ak Alaaji Ibrahima Sall ñoom mudd ñu jàll Mary Teuw Niane dina ba tey conseil constitutionnel leerali Amadou Sababa comme ni ñu koy defee ci baccalauréat yi da am d'office second tour wala ñu ajourné la candidat déclaré Aly Ngouille Ndiaye ñu xaaroon ko lool moom jàll na ci ñaareelu pàcc bi waaye foo mu mottali yenn xob yoo xam ne daf ko manqué kii mandataire am Daouda Ka nee na loolee dina yomb lool ci ñoom ndax la ñu yor ca sàq wa des na dama doon rassurer rek suñu militants yi d'abord pour leen wax leen am nañ un stock suffisant qui nous permet de combler li nga xam ne moo mañ Souleymane Ndéné Ndiaye ak Malick Gakou ñoom jàll nañ waaye faw ñu mottali yenn parrain yi ki teewal Malick Gakou mbiru ba gisee nee na loolee du métti ci ñoom dix-huit yoo xam ne buñ ko joxee trois mille rek lañ siy jël mu mat ndaw lu coon ñaa yebal gannaaw ba mu génnee ca conseil constitutionnel dafa mer ba futtu nee na daal ak jaay doole la ci gis Youssoufa Diallo li xew ci biir lu dul gàcce ñu dugg ci salle de délibération bi ñu présenter suñu clé ñu commencé exploite la région de Dakar sur dix mille parrain benn parrain sur date d'expiration bi kese moo am erreur mu exploiter waa deuxième fichier Dakar bi amul erreur ci gàttal candidature Thione jàllul donc loolu la ñu wax. keneen koo xam ne jàllul Mamadou Diop Decroix ka mu yebal soxna Diouf nee faw ñu xoolaat lii di système parrainage bi. liñ koy defee fii euh, ñun dañ ko mos di bañ. waa parti panel ñoom dañ leen a dàq ndax seen i matul ñuy jël baaraamu tuuma di ko teg ci waa CDC Pathé Gueye Mbodj mooy mandataire ba. ñu jox la quittance nga jël quittance bi indi ko déposé ko conseil constitutionnel le lendemain actuellement seen DG dafa dem tournée politique. ñu dàq ko ci semaine bee ñu génn Mary Teuw Niane tey jii ñëwoon na ca conseil constitutionnel ngir déposé benn recours ndax jàpp na ne daal mbir yi la ñu ko wax dalul xelam kaka fa teewal di tabouré añ. bu ñu gisee loolu euh, dañu dem jël avocat ak huissier ñu def réclamation donc réclamation yooyu moom laa indi woon tey dugal ko conseil constitutionnel. ci alxamis ji gën a nuwuloo candidat déclaré yoo xam ne dinañ jaar ci kanamu commission de contrôle bi ku ci mel ne Anta Babacar Ngom Alpha Thiam ak yeneen i candidat déclaré jërëjëf Amadou Sabax RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñett. pour man RFM mooy rajo di gaaw ci xibaar yu wóor. xale yu nu jële woon kër Ndella Madior Diouf di tout tànk ca kër Yërmande ca nu entré woon leen fukk ci ñoom ci hôpital Albert Royer bu Ndakaaru daanaka ñaar rek fa des juróom-ñett yeneen yi wér nañu macha allah leeral yi euh, soxna si jiite lopitaal ba di docteur Issa Tall Diop ñu teewlu ko Nafisatou Sylla bi ñu yëgee rek ni euh, am na ay xale yoo xam ni ñuy ñëw jóge ci euh, kër yërmande googu ci la ñu wax responsable sociale bi nekk Albert waaye mu ubbi ab l'enquête saytu ko ba mu demee ci la ñu xamal ni am na juróom-benn xale yoo xam ni ña ngi fay daal di ñëw ñaari jigéen ak euh, ñeenti góor yoo xam ne depuis euh, ñaar fukki fan ak ñett ci weeru bi ñu ngi commencé dugg ci hôpital bi ba pare médecins yi waxoon nañ tamit xale yi li ñu seetli si ñoom mooy ñi euh, leen fay indi jot leen du yomb te ba ñu laajtee dañu xam ne ñoom ñëpp ñu nga jógee ci structure boobu ñuy wooyee Kër Yërmande bi yëf yi éclaté nag ba mu siiw jëleen nañ ci hôpital Gaspard Camara juróom-ñeent xale yoo xam ne dañoo sonnoon ñu indi leen suñu hôpital ba nga xam ni le 23 décembre fukki xale ak benn duggoon nañu donc ci biir Albert waaye ña nga fa woon vingt 26 nag ci weeru décembre bi mu jotee ñu génn fukki xale yi delluwaat ko Gaspard Camara ñaar yi daal di fay des fi ñu toll nii ñaar ñoo fa des ci Albert waaye bi yëf yi amee ñoom ñëpp dañoo takku ñi mën a jënd biberon jënd ca saa ñi mën a jënd meew jënd meew ña ca des dellu seeni kër daal di uti ay yére pour xale yi faj nañu xale yi ñoom personnel bi mais aussi da ngay gis ñoo xam ni dañ doon boot xale yi di naxtaan di woyantoo ak ñoom xam ne xale bu mel noonu du faj rek la soxla dafa soxla woon lu bari moo tax commission yu bari dañ ko ubbi woon. mu nekkoon jiital hôpital Albert Royer ci euh, gone yéen fa entré woon ci ñu euh, euh, nekk ci jaamu jamono yi macha allah leneen ci xibaar ak RFM wàllum bind ak dédicace ñaari téere yu ñu defandoor démb ci agence de presse bu Sénégal APS ba ca jiitu mooy téere bu ñu duppee le Sénégalais entre humour et frasque bu naatango bi di Cheikh Tidiane Ndiaye ak l'épopée de Paris Dakar Dakar Matin 70 bu Mamadou Koumé occasion la woon nag ngir professeur Diegane Sène euh, sàkku ci journaliste yi ñu faral di gën wéer seen ak liggéey ak mbind ci mbindi démb yoon di archive bi compte rendu roqee sombre dellu si ci taarixuk Sénégal waaye itam solo tasuk xibaar ci dundinu ko askan wi loolee moo sabab ñaar ci ay téere yu ñu xaatim ñi ko amal di ñaari kàngam ci wàll wàllu woowee docteur Mamadou Koumé Cheikh Tidiane Ndiaye. li am ci solo ci ñaari journaux yëpp mooy ne. Boursi mooy euh, mes meilleurs amis moom nga xam ne moo di actuel directeur euh, de l' agence presse sénégalaise voilà am na lu liggéey bu am solo bi nga xam jot na ko faa def. Mhm. bu loolu weesoo El Hadj Assane ñu di doore xibaar tàggat yaram yeeg football ak championnat Sénégal mi ngi seen. soixante-dixième journée ni ki a kon bokkal la ñu ko daal jeexal ci stade régional bu Kolda foofu nag Casa Sport bu Ziguinchor mii féete ci place bu mujj bi moom moo daal daan Tëngéej ci FC nag loolu lu mu moom damay wax ni bal bi ñëpp a ko bokk fula ak fayda mooy régler lépp fii suñu terrain la parce que Kolda suñu feef la donc pour man dama ne xale yi tey ñu ngi daje ak Tëngéej bu mag mais fexe leen. bu leen nanguwaat daanuwaat ñaar yoon ci ay journée parce que boo leen ko defee du ñu progressé mais bu ñu góorgóorlee ba taxaw fu ñu nar a taxaw football bi match bi Tëngéej sonal nañu mais ñun tam aussi am nañu lu ñu mën a def ci Tëngéej parce que ñoom mën na leen 2 bi à 0 ñu égaliser ñu nar a uti troisième bi bi ñoom ñuy ut ñu ñu ut yàlla def mooy gën di corser kooku nag moo di tàggat Casa Sport bu Ziguinchor gannaaw ba match bi jeexee tamit kii di Cheikh Gueye di tàggat équipe bi nga xam te ne di Teungueth FC am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati moom nag euh, daanaka defet bi nga xam te ne am na ko ci digganteem ak euh, Casa Sport bu Ziguinchor euh, doon mbetteel ndax xamoon na ni Casa Sport fi mu toll nii dafa sës si mur te ñoom seen i pexe moo di fexe ba jóge ci place bu mujj bi looloo waral kon bokk match mujj metti ci ñoom ñu déglu ko Cheikh Gueye entraîneur rek mooy tey gisoon nañu équipe bi nga xam mooy Casa Sport nekkoon équipe boo xam dafa nekkoon situation bu xaw doy victoire soxla boobu mu soxla victoire xaw ñu sonal si première mi bi ba ñu ñaari bit raté penalty kon ce qui veut dem si verseer ak 3-0 mais heureusement penalty boobu ñoom ñu raté ko ñun ñu ñëwaat si match bi ak yenn argument ba am li nga xamante ni moom mooy deux-deux match bi nag bi mu tolloo foofu bi des 10 minutes match bi gis nañ match boo xam dafa ouvert dafa bépp équipe bu nekk mënoon nga dugal opportunité yi gënoon leer sax ñun ñoo ko amoon mais dafa fekkoon ni Casa Sport am na opportunité si corner ñu dépendre ko défense défense boo xam bu bon ak Casa Sport dugal ci bu loolu weesoo ñu waxtaanee équipe nationale bu Sénégal di waajal Coupe d'Afrique des Nations bi nar a amal ci Côte d'Ivoire Sénégal nag match bu njëkk dina ko daal amal fukki fan ak juróom ci weer wi ñu daal di nekk seen digg ak ñi nga xam ne ñoo di waa Gambie lay daal di doon match d'ouverture foofule ca Yamoussoukro ñoom nag euh, boobu ak léegi nag euh, ñu ngay wéyal seen préparation fii nii euh, ci Ndakaaru li ki dem nag ci séance d'entraînement bi nga xamante ni ñu ngi doon amal lu fukki jour ak juróom ñett ñu nga woon ci googu les séances d'entraînement ñu ànd seeg pelouse hybride bu stade maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio moo dalal ñeenteelu séance d'entraînement gaynde yi fukki minutes ak juróom yu ñu ubbil presse bi tax na kon ñu seetlu ni Sadio maane bokk ci staru gaynde yi demoon ca Bambali ngir dalloo stade bu bees bi nga xamante ni def nañ ci pelouse synthétique te moom Sadio Mané may ko ndaw yi nekk ci dëkk boobu nga xamante ni fa la juddoo ñu gis ni tamit Kalidou kulibali bokkuloon ci séance boobule donte sax moom fan yii yëpp jot naa entraîné ak ay naatangoom kon fukki gaynde ak juróom-ñett ñoo teewe woon na séance d'entraînement lee mu doon fukki joueur ak juróom-benn nekk ay joueur le champ ak ñaari gardien ginnaaw échauffement collectif bi Nampalys Mendy mi amoon gaañu gaañuwul ci lu yàggul dal di entraîné moom kese ànd ci ak ancien international bi di El Hadj Ousseynou Diouf bokk loon kon ci séance bi di Youssouf Sabali donte sax moom bokkuloon ci liste clubam bi di FC Séville bi doon jogante ci mercredi bi 19e journée Liga bu Espagne Pathé Ciss Boulaye Dia Pape Matar Sarr Idrissa Gana Gueye Seny Dieng ak Abdoulaye Sima ñoom it kon ñu jàpp ni ci waxtu yu di ñëw nañu fekki seeni natango ci jeudi bi tanière bi dina ubbi ay buntam li ko dalee 10h30 taskatu xibaar yi def déplacement ci seen hôtel boobu boobule ca jam ñaaco nañ mën a kon waxtaan ak joueurs yi ci ngoon si bu 17 jotee dina amaat beneen séance d'entraînement ca stade Abdoulaye Wade bu jam ñaaco bi yoon kon dañ koy ubbil public bi Youssouf Badiane wax nga ko Sadio Mané moom démb fekkee woon lii di séance d'entraînement la ko war nag ma nga woon ca dëkkam ca Bambali foofu nag ànd fa ak askanu takku ngir daal di inauguré lii di stade bi nga xamante ni daal dina fa tabax stade bi nag nee nañ bi 1000 places la euh, ñu fàtt nag Sadio Mané am na ay mbir yu bëri nga xamante ni daal na ko taxawal foofu la euh, ca dëkkam euh, de Bambali ni ki démb nag ca cérémonie bi moom daal dina yëkkati ay kàddu ñu déglu ko ci micro Bakary maa ngi nuyu autorité administrative yi teew ak euh, samay xarit naka noonu itamit partenaires yëpp mbégte rek laay am tey ànd ak yéen ci bis bile di leen dalal itamit jàmm ci fii nga xamee ni moom laa soqee ko di Bambali fii nga xamee ni fii la lépp tàmbale li nga xamee ni nag moom laa taxawal fii ci Bambali day wane rek suñu engagement ak itamit bëgg inspirer jeunesse sénégalaise bi ak itam bu Afrique ngir ñu mën a poursuivre seeni rêve comme man ni ma amee chance boobu mbégte mu rëy laay am taxaw tey ci terrain de football bi jàkkaarloog yéen terrain bi nga xamee ni norme FIFA la daal di am te mu sori ci man loolu nekkul rek cadeau boo xam ne ci man la jógee pour euh, sama gox bi le dafa dee itamit loo xam ni day wane mbooloo bi ñu doon ak itam passion bi ñu am ci football yéen ndaw ñi nag laay waxal terrain bi yéen a ko moom li ma bëgg rek moo di ngeen suqaliwaat gox bi le ngeen gën a liggéey gëm seen bopp dund li ngeen xamee ni moom ngeen di rêvé ci noonu ni ma encouragé leen rek ngir ñu gën a doxal li nga xamee ni moom la ñu gëm te gëm itamit ni ñoom mën nañu dooni ku màgg ëllëg sama boor nag li may promettre rek moo di dinaa continuer di soutenir di investir itamit ci suñu communauté bu ko defee ay ndaw yu mel ni man mën a poursuivre seen rêve comme man ni ma ko defee bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd rek booloo taxawal Sénégal boo xamee ni ndaw bu ne di nga ci gis sa bopp yëg ci sa bopp maa ngi leen di jaajëfal ci ànd gi jaajëfal gëm bi ngeen gëm projet bi terrain bi yàlla na doon li seede rek li nga xamee ni moom moo di suñu passion suñu détermination ak itamit li nga xamee ni moom moo di suñu succès ñun ñëpp. détermination de notre succès collectif. El Hadj gàcce ngalaama Sadio Mané bu ko neexee yëkkati loxoom nii wóoy. Mhm. Sadio Mané kay la mu fa def moom macha allah yàlla na ko yàlla lafal football. ci ah. biti ak championnat Europe yi. Euh, na France démb ñu ngi doon amal trophée des champions. Mm. Paris Saint-Germain moom mujj am ndam ci diggante mag ñi di waa Toulouse 2 à 0 Kylian Mbappé moom moo jot a dugal ñaareelu bitu Paris Paris Saint-Germain euh, ci Espagne ñoom ñu ngi doon amal seen 19e journée seen championnat ni ki démb nag Real Madrid moom moo mujj am ndam itam ci diggante mag ñi waa Mallorca benn bal ci dara seen biir nag ki ko dugal ci njeexitalu jogante gi moo di Rudiger di seen défenseur googu lay waxtu yi tamit euh, nga xam te ne ñoom ñoo di Giron euh, Giron ñoom nag fi mu toll nii bokk na ci ki nga xam ne ñoom ñoo lëmbe championnat bu Angleterre euh, bu Espagne ñoom nag démb si njeexitali jogante gi si seen match bu doon dox seen digg ak Atlético Madrid ñoom ñoo ca daal di am ndam ñeenti bal ci ñett fi mu toll nii nag ñoom ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Real Madrid ñoom ñoo tolloo ki poñ waaye Real moo ko daal di jiitoo wàllum goal average waaye jàppale ñaari di Real Madrid ak euh, rawee nañu lu tollook fukki poñ Atlético Madrid mi féete si ñetteel place bi tey ci ngoon nag dañu xool ba xam nu FC Barcelone yi def. incha allah incha allah jërëjëf Cheikh Tidiane. ak RFM kumpa jeex na. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture beeg Anna Rocha. maa leen di nuyu mbokk yi galerie nationale euh, mu ngi dalal ba ajuma ji ñu dëgmal euh, édition bu njëkk expo euh, batik 2023 ñu gis ne cuub mu ngi daal di amaat doole ci biir Afrique Sénégal rawatina initiative bi mu ngi tukkee ci groupe Kajoor Batik bu Jo Mansour Madiane Diagne teewe na cérémonie vernissage bi. sër cosaan. lii ak leneen la ñu seetlu ci li Zo Mansour fësal moom moo taxawal bi lépp exposition. batik batik boo ko déggee na xeetu cuub la rek mais bu xaw a particulier parce que da si siy créer ay dessin donc euh, tey ñu ngi fii si galerie national euh, war fi amal benn exposition boo xam ni si wàllu tissu am batik la mais aussi dinañu créer ay yëre yoo xam ni nit ñi dañ koy faral di sol muy lu original na loo xam ni euh, comme ni ma ko waxee woon rek ñun Afrique ñoo moom batik mais mu nekk métier boo xam ni ñi ko xam bëriwul donc ñun la comme yàlla may nañu suñu yàgg si trop découvrir ko ba xam ko euh, ñu ngi jëm suñu kattalay kattan euh, pour sénégalais yi di consommer produit bi mais également ñu ngi fexe di organiser ay atelier de formation pour jigéen ñi ak ndaw ñi. mu ñëwoon ci ndaje bi professeur Massamba Gueye di rafetlu liggéey bi. li ma gën a ci exposition bi c'est que dañuy ñëw fekk ñu wekk ay yére mais en fait ay tableau d'art la leneen li ñu gën a marqué mooy que euh, matière yi muy boole yëpp ànd ak batik basin jean wax benn bu ci nekk mais batik bi mooy ëpp ay yére rek donc am na yoo xam ne ay nab la mais nab yi aussi ay tableau d'art lañ donc loolu moom ma gën a marqué mooy finesse bi qualité bi mais surtout euh, harmonie bi am nga xam ne c'est purement du Mandé. Maodo Malick mbay nekk directeur ANAMO di lu taxawaay bi Batik am ci aada ci Afrique. non dañuy ñëw teew tey fii ci vernissage Mansour euh, Zo bu Kajoor Art ci wàllu Batik euh, parce que dafay wane art dafay wane lu jóge ci Afrique lu jóge ci Sénégal ñu koy rafetlu loolu nag Mansour dafa mën maanaam dafa xarañ mais boo xarañee ba pare nag yaa jox mandarga mbiru aar bi am na métier yu bëri yu ci war a dox mu dugal ci coupe et couture ci ak waa FENA ñun loolu la ñu xamoon au niveau de l' agence nationale de la maison d'outil formé leen ci wàllu bati da nga koy def ci ci anam yu yu méngoog jamono. Zo Massour nekk artiste ak formateur jaar ci mbile mbir ngir andi li yees ci wàllu aada ba noppi di former ay ndaw ci Afrique ak àdduna bi. ñu ngi woyal semaine bi ñu jagleel moomeelu Cheikh Ahmadou Bamba exposition bi euh, soxal euh, photo Serigne Touba yi talibe murid yi jëndoon ci weeru mars atum 2023 ca France mu ngi euh, woy fale ca musée des civilisations noires ubbi nañ ko pour public bi semaine bi nag daanaka dinañ ko jeexal samedi ji ñu dëgmal mbokk yi fi ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha